Adja fay naa ko xaalisam waaw ndax nag euh, comprendre naa la bu baax a baax ndax situation yi nga toll dama cee tolloon looloo tax ku ci toll rek damay xam li ngay li ngay jànkonteel waaw fay naa ko léegi seen diggante jeex na nga bàyyi ay lebak ay jël li fi jàmbur loo am na la doy soo bëggee dara soo amee nga jënd man soo ma laajee sax su ma yoree ma jox la nga dem jënd mais ay dugg ci affaire jàmbur bu ko defati dégg nga loolu laa bëgg man tey am na loo xam ne daal jaxasoo na sama bopp loolu keroog mu la fekkee ngay wax ak Aïda ba léegi danga ma waxoon di ma expliquer lan moo xew mais waxagoo ma ko ma bëggoon wax ma ko tey. taa may dëgg la keñ boobu ba léegi waroon nañoo waxtaan mais boobu ba léegi amuñu occasion gis nga ayda moomu ngay gis maa ngi dégg nga naan xaw ma daa am jëkkër xaw mais kooku lu ma metti sama àdduna rekk moom moo ma ko teg moom moom laa bett ak sama jëkkër. kan nga nga ne kan sa soi-disant boobu mu naan sa njëkkeem ngaat xooma lanat lanat lan jabaru ko xooma sax kuy jëkkëram man keroot laay doo ko yëg ni dafa am jëkkër. non man Aïda bi nga ju nekkul di di expliquer ak moom ba ngeen di détaillé laa xam ne Aïda ma may man premier njëkk. moom nga góor moom nga ma fekk noonu. mak koy wax muy jënd galas hmm. man damay bëgg a jommi wala man damay bëgg waru ku xamul ne xamoo Do comprendre sax naka waar waa àddina bi moom xanaa moom dafay bëgg jeex ay ni mu mel am personnalité baax bëgg ko jàmbaar kenn du ko yeb ay da dem di dox ay dox yu ñaaw bañ koy bett moroomu jigéen kooku de ma rek sama digg lal sama jëkk ak fi ma ko tegoon moo ñu bi dafa ndaw Do comprendre sa mota tax keroog ba ma ko fekkee gisoo may nga yegsi rek mu daal di almet ni nii man man dafa melni dañ ma xëpp ndox man fimni mu ne fi ma toog nii man de waaru salaamaaleykum salam ci lu nek nekk du musse Wade ah yow de xam naa ne mere nga ma non jamais ni nga ni bobu legui déggante wuñ ma ak yow mais yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm naka la. sant bu baax alhamdulilah. ça va. naka activité yi. activité yaa ngi nii rek. yaa ngi am jàmm naka mu. di waaj rek. Aïda naka mu. alhamdulilah. da nga xam iya, Aïda. bien sûr. xam naa ko bu baax mais nag seet si wu ma la de moom mii laa seet si. waa Aïda da nga xam kan, monsieur Wade bu baax ki moy sama jëkkeer ji ma trompé woon ak sama xarit bi man dax man damay bëgg jommi musse wad oui aba li kay moy mëna am tam moy mëna am li wax ni loolu ta ñak ndax man jour bi ma la ñëkke xam gis la mhm. nga indi ma sama lettre divorce indil mhm. ma kayitu kër gi ma dëkk tay mhm. kër gi dama ko boñal ba tuddu ci suuf ne bëgguma daray Boubacar Ya ma forcé ne ma no may jallo tooga ndax bo toogulee da ngay gëna perte mais bi nga né ma tam nga rek la sama xel ñaaw ci yow ma xamné bo dul peur rek ci yaro yi ngay doon mais donte comme ko am na ñaar option yo wax rek alhamdullilah man damay bi ma ci gënal muy bi gën nee nga kayitu kër gi ma la ko jox ba tax nga tok ci kër gi muy sa jëriñ da nga tok kon bo indé leneen duma jaaxal aduna ak lool ñu ant s'il te plaît may ma tuti ma am luma wax ak mom waye man mako liggey man li tàngu ma non na am lu upp li ndax dama ko liggéey. sinon ça va Aïda Aïda. yow lay di ma ne sinon ça va. ça va très bien xanaa problème bi ma fi doon wax nan ma dafa bet ak xaritam jëkkëram. ci biir néegam lolou yëpp netali won way yow tee ngaa def ndànk ki ne. da nga xam kum ko betel ndekete yo ay damu goor lako betel nga bari ay jaxam ay damu goor a mat. Hmm. Aida jabaru gur, doomu Soda Jaay ay dem yi ma don jekki may tayal ci mbir mi nak baxna musse wat moy mooy musse wat musse wat moma indil lettre divorce bi nema bu bakkar moko yoni ci man moma indil kayitu keur gi man bima ko sene moy ñew sax dama ni man lay seet ndax bobu nyufi. ñew fi ah. ci lañ ñu yontee ñoom ñaar rek affaire bi commencé moy lool mo wax leen da ngeen xamanté ku ne di wax sa morom ne man nak bana adina tay nak ñëw mi moy mooy jabaru monsieur Wade waktu. waajaa ngi bi la la wax tok wajangi fi wayu waaye wax ji du lolu yow goor dans tout ça goor no si très bien mom fu ko jele won nga indale fi du denc ci yow parce que dañ ko def ci yow gaynde nga nak gaynde ko jigeen mais gaynde ko goor mo lo mo lo xol ma ci beut eh ci problème nga mais donc nga koy assurer assumer ko am courage xol ma ci beut wax yow courage affronter ce problème voilà je sais que toi tu m'aimes ça moi je le sais Il nag je ko àdduna fi lañ ko fekk fi lañ koy problème bon. am quartier bo rom kulu ko ëppale ma nga fa armer yo rom problème bo am armer yo rom kulu ko ma nga fa ñu sul kon warul feñ ni fi fi nga nek du sa kër te du sa cër fa nga joggé mo def ni nga mel tay ba tax mané la sawa nga ni sa wa très bien kon li sa waré xam nga moy la nga juk ñu dem nga delu fa nga joggé won dama wara man dama di yow ti nga ñëw ba fii fekk ma fi ma ne nga am audace taxaw naa ma fii nga nekk du sa kër fa nga jóge mooy sama kër yow Lamine est-ce que yow yaa ngi xalaat yow li ngay defat li ngay wax yow man maa la suur loolu laa bëgg nga dégg ko yaa ngi may dégg voilà. waaw da nga may déglu ma wax la même boo ma suuree nii bés dana ñëw di nga xiifaat te damay bañ ba ngay xiif bay fande fekk keneen jariñoo ma. su ma xiifee dem lekk leneen moo ma gënal ma ñëw ci yow. góor ci affaire bi yëpp moom yëg na lii ah a xam nga ne yëgul lii waaye bàyyi ma waaye yow góor nag da koy yëg par A ou B. Ah, ki damay góor a fii la bokk góor duñ ko bàyyi mu koy yëgee ci mbedd mi. Ah, yow dangaa defe ni li problème boo xam ne dangay ñëw rek toog ni simplement wax ko nit. damaa xamul sax lan lay wax. te yéen may mun a jàlloo. bul def non de Kiné li noo ko mën a waxee góor ah, may may limay xalat xalato ko de may nak Binta Samb lim doon wax lepp amna une part de vérité mala wax li wa may nak senegal mom est-ce duñ ko jaay nak ku ne jël nak xottal nak dem ah man de bal nan sama wal man mom baxna jere jërëjëf ba doy na sëkk góor ni mu yiwe góor ni mu baxek ni mu mateeg ni mu amé personnalité may mun a jàll problème yi góor a yenu lépp di daw. ñu bokk ca boole sa bos ak sama bosag ak bosu keneen yëpp mu dajale ko. ak bu Boubacar. lii ñëw bëgg cee teguwaat. ah man de waxuma waxaanu man de xaw ma wax nga xaw ma waxoo. ay da ci boppam. mooy ki ñuy woo mu toog fii wax ñu li xew. ay ki ne dama ni xoolal la lañ saal sa lave en famille. waaw dëgg na loo xam ne jarta nëpp nëppal. uyu ma Aida moom. ay Aida moom bu ci góor a lijjanti maay ki koy rey man dama ko. xoolal déglu ma ki ne. lu ma ki ne du noonu xam naa la du noonu man fi ñu toll nii dama am sama paan ci yoon sax waruma yër benn kopp jàmbur waaye góor a sàmb nag yow tamit waaye defal ndànk mbir moo gis ak niñ koy lijjantee xëy na nag dangaa mer duma la ci topp moo tax bu la neexee nga réagir nii mais man je sais bien que amoo ku mel ni man te mënoo am ku ma gën la neexee nga suur mais boo suuree bés dina ñëw nga xiifaat bala nga maa jariñoo xëy na keneen mën na maa jariñoo loolu lay bañal mënoo am ku ma gën dama koy wax sànq sa da nga lan j'ose dire et j'ose waxaat la ko mënoo am ku ma am sax laa wax ku mel ni man maa njëkk ci yow xamal luy àdduna defar la ba nga mel nii kon bu erreur amé ci digënté bi erreur bo gis problème bo gis amna solution mais lepp dañ koy waxtané du ma la topp ci dara na xëy sa xol mo tollu fi nga toll mais nank nànk ba nga résoudre sa problème fi du sa cœur fele moy sa cœur fi du sa jëm kay dong ma fi jigen do dem ngir yalla nga dem ay da mom nga nekkalo mi ma la bettaloon foofu noonu mu ngi sone wër na lay wo ndax yéen yam doo dem nga seeti ko moo gën nga nekk fii naan danga may wut si delloo ma tey delloo ma suba delloo ma gannaaw suba loolu laa bëgg nga dugal ko sa bopp xaw ma nag ki nga fi yónni woon sama xarit boobu satu ba xam wax na la li ma ko yóbbante xaw ma déet waaye moom waroon na laa wax la ma ko wax te bu sa tànk bu mu jamati fii nga naan dangay ñëw di ma jël si yaa ngi may dégg. doonatul man ak yow man maa la suur ci àdduna xanaa yow doo gëm loolu man doomu maa jigéen nga nekk mo moom ah gal dal metti na kenn mënu fe dundu ci jàmm. xam lu ko metti problème bu amul solution mako metti mais bo amé problème di xalat solution du metti ci yow xol mo ci biir beut amal courage affronter li ngay ci li nga nek wuy ma damay bañ recc di la raw rëccu lay bañ mu raw la li wax sank la lay waxat problème man ti am ci kaw souf koñ boo romb ku lu ko ëppale ma nga fa toog te kenn xamu ko ci moom delloo si sa xel. man moom dooñ ko lijjantee fii moom. xanaa da ngeen di xool dem ba zag ba da ngeen di dem zag ba te maa yu féexee ngeen waxee fa mais fii moom xam noonu ki ne fii kër gu bees gu may soog a dugg la bëgguma détails yu mel noonu ñu ko fii réglé fii la xewee fi lañ koy dem dama ne wuyu ma eh wuyu ma mm. nekkal nit dama ne fi lañ koy réglé demuñu benn zag fi ci bir kër gi lañu wo ay Aïda tok ñu xol ko les yeux dans les yeux mu wax ñu lu xew bu dee li ngay wax deug la. nga def dank rek man de waxuma fekkewu ma may wax ji wax ji day day dem ci mbedd de nit ñi téyelatuñu kenn sa lenn rawati rawatina waxi ndialo ay way goor mi yeeram na nañu xol nañ ko lijeenté nak ki la defal ba nga melni bañu la te du la mësa bayé rutul lay tur bobu lay bañ nga koy tuddaat. xam nga lu ma bëgg nga xam ko yow Lamine loo ma defal benn defal naa la ko fukk maa ngi yow sa sombi ya maa ngi yow sa mat laa ndëstën ya maa ngi yow ci ndékki bañ a añ maa ngi yow ci añ bañ a reer te teewul maa ngi doon toog di la ko muñal yéen nag yéen ay ñoo góor moom mooy loo xamante ne day toog fii di séentu la feneen la ca kaw man nag dama fee nekkul nga naan benn ma naan ñaar dama amul jot boobu am naa beneen temps man banaa la bàyyi ma comme ni ma la bawee loolu laa bëgg nga dégg ko mooy sama dernier mot nag ba ma aw ma lu ma ciy regretté nag bien sûr am nga regret. loolu nga bien sûr bu amuloon looy regretté la nga meloon fee doon dund àjjana ci commandé doo ñëw fii ñu lay commandé. Aïda muy kii ñëw toog. kii fit ah, day ñëw toog Aïda day ñëw toog nag.

Sabu boo toogee yaa ngi sa xel ci lu ñaaw ay da tere la nelaw yaa ngi koy regretter pourquoi pas nga mel ni nga meloon récupérer li nga récupérer woon li nga moom nga jël wal sa bopp su ma la toppee ya, ba fii li nga wax ci njëlbeen moo tax ba ñuy ànd dafa métti kon lu ñëw ba fii na la yàqu loolu tax ma lay kon dama lay nga jaar gauche ma jaar droite na du ma fecc coloré donte erreur bu amee dañ koy jëm ko rafetal ba mu rafet ubbil sa xel mi nga xol bu baax li malay wax te xamni sa avenir moo tax ma lay topp fi fii du sa jëmukaay fi du sa kër encore une fois regardez-moi les yeux dans les yeux amul courage sumay waxe nga may xol wala li moy tax ma xamni ne nga sa problème bi ngay wax ya may dégg dama bëgg nga délo ci sa xel xamni man la ak yow du yow ak keneen d'accord man nga jug nga dem waaw këj damaa sonn ci wàcc. <laughs> Ah, même loo sonn sonn di nga dégg dëgg ji dégg nga encore une fois fii ak yaa ngi fi maye fi problème bi dinaa ko lijjanti incha allah d'accord merci beaucoup. ñàkk def li ngay def ba pare ñëw fii di am audace naa yooyu ngay ñëw di wax ak man ñàkk jom. bii noo def nag. maa ngi nii Tamba maa yaa ngi ci jàmm rek. maa ngi sant bu baax. alhamdulilah. gëj naa laa gis. maa ngi nii. nama naa la de. billaay <laughs> maa la raw. xam nga sama xaritu xol nga. dëgg la. temps yii yëpp nag ngi bëggoon laa gis. ndax dama xam ne yow rek yaa sa kër yow rek yaa nekk sa kër. ma xalaatoon ne mën naa ñëw sa kër pour jàppale la la daal ndax papa daf ma doon proposé pour ma dem liggéeyi légui na farmadege, dégg né yow yaa sa kër da du ñëw ma and ak la pour waxtaan ak yow mhm. dama bëgg nak ñëw fi di la liggéeyal di and ak yow daal waaw biige mhm. xam nga ki ne moom mi ngi fi moom actuellement nii maak moom ñoo nekk nii waaw ah man nag bañu ma nga nekk ak man ndax loolu dara ndax man awma problème mhm. mais dafa fekk ne kër goo gis amna lu fa nek lo xamni ken beugul mu genn te sama kër gi nak yalla def na def am ay secret yu beuri yu fi nek te suma sañon du genn buntu kër gi fi lañ koy lijeenté fi lañ koy defee ñepp kenn du ci xam dara te yow dafa am no xamni mom nga mel ndax bi ge sa bi te yowoo ko lu nek ngay wax nak lu nek wax nga ko ci ci dekk bi amul lo waxul te man yoyu daf may dérange. may xana légui kon ni ma mel. ndax may loolu feebar la woon rek rab ya may wax loo sama papa faj na ma dama daan tëdd ba guddi ñu naan ma biige vous la parole ah looloo tax lu ma yëg mu deñ mais fi mu toll nii moccal nañ ma ko deñ na hmm, biige ay rab yu lu lay wax loo ak rab ni mu mel xamoo fu mu lay dikkale xamoo fu mu lay daanale nga wax waxal ma lo xamne duma xam fuma koy lijeenté est-ce que sey boutel matna na. mat na sëkk. ah waaye fajuna fajuna de sama badjan nak bëggon na ñu waxtaan ci sama badjan loolu ñuko doon waxal mok tonto bu Bakar dara amu ci sama badjan da ko doon jégué rek pour seen sey yeen ñaar. Eh, gis nga bii gi lañ nane dof du wer rab rek ñoy jël conseil ba tay la ma gisoon ci yow rek la gis ci yow te gis nga ay soda ak yoyu man ñoñu dama leena tek ne le sama yon nekkul ci waxi bubakar te bëgguma nga may wax waxi bubakar di ma ci tegal keneen lima bëgg dal moy bu fekke bëgg nga nek ak man sa gi nga ne ko rap